fekk fi mbokki tafatin yi waa Refane yi fas lu jëm ci combat bi ci loo ne. maa ngi si jàmm bi kan nga nga faral. waaw. moom bëgg mu daan. incha allah dañuy daan sax. ah waaw. Ah, ko bu baax. duma ko daan ko ñu ñibbi donc. mais Balla nee na Tapha lu mu indi da koy ñax. bala moom ku ne xam na ne waxkat la moom. waaw. ah. bala ku ne xam na ne waxkat la. nee na dina jàpp Tapha duma ko daan ko. combat moom lu cay am ñoo koy def moom. ah. ba dimanche incha allah combat moom lu cay am ñoo koy def moom. ba dimanche incha allah. incha allah si waa Réfane nga wala waa Géej waay. waa Réfane laa. ko faral. Tapha Tapha nga bëgg mu daan. waaw te mooy daan sax. mais nan nga gisee Tapha ak ak Balla seen wàllu entraînement seen wàllu physique. non ñoom ñaar moom macha allah Tapha Tine moom diis na waaye mujj na wàññi poids xam daa diisoon mais wàññeeku na gars wax naan ba mu wàññi poids bi. ah na poids. wàññi na poids bi na mu tolloon tollatu ni. Ah waaw. day dem rek jàpp daan. mais démb démb ci ëppal presse bi Balla nee na. Ah. lu Tapha indi da koy ñàkk. non daroo ñëwoon daanu mais bii ba du yomb. danoo ñëwoon mu daan ñu paramètre dañuy feeku danoo jël si revanche dañuy rek jàpp daan non da doon 2-0 dañuy ñëw rek jàpp daan ah. dañuy danoo jël si revanche ah. ñun ñooy dox si kawam daan ko ah. danoo jël si revanche Thierno noo léegi noo leen ko bu njëkk moom da koo takkoon mystique la danoo takk loxo yi takk kanam gi mais léegi moom tafa yeewu na est ne loolu loolu am da diwaat bi. non du amaat Tapha yeewu na da doon nelaw mais yeewuwaat. mais que nee na gisul non gisul bi moom lu gisul danoo takk loxo tak takk bët yi. mais ins bi moom yeewu na moom. am ngeen confiance seen bër. am ngeen confiance bu baax. Ah, ba dimanche non day dem day ñëw rek jàpp ko daan ko. dañ koy conseil non mën na yemee noonu. Tapha dina xeex ak ki jeexal na. boo gisee ni mu béré moo kii rek nga xam ne jeexal na. ah bon jeexal na tàkk. dafa dem day rek jàpp ko daan ko bala ngay jeexal na. ok yaa maa ngi jàmm waaw. yéen ngi waaj combat. waaw ñu ngi koy waaj ñu ngi koy pare de. foo féetee géej waay reefan. non reefan laa féetee. yaa ngi reefan. maa ngi reefan. mais mais mais nan la gisee euh, Tapha ci état état de physique bi mu indi. ah Tapha Tine andi na doole de jamono ji andi na doole de. taxaw na moom. bu yàlla defee jàmm rek moom. saa dóor mu daanu. mais mais mais mais démb Balla Gaye nee bi lim ci am mooy ambiance. su moyee loolu. lu mu indi da koy ñàkk. ah non. Balla ci am loolu nag Ba moo Balla moo ci am ambiance. mais Tapha mais Tapha moom moomul wax ju bëri. wax ju bëri mu ci Balla lañ ko xamee. yéen kay. daa ba dimanche rek incha mais Balla nee na lam defoon lay defaat de. du def loolu tey. nee na deux may. du def loolu un un lay doon. Ah 1-1 doon après ñu tëggaat ko. sa waay am de wóolu naa sama mbër kay. wóolu naa Tapha. wóolu naa Tapha. pour bëri Balla Gaye moom daal bu nga na taxaw rek na taxaw si ren Balla lu mu yàgg yàgg dana ñëw. taxaw bi dana ko arrangé na taxaw na taxaw xeex moom rek Balla xam nga xeex mu arrangé wu. ko. xeex arrangé wu ko tey bii paa doon di xeex. Tafaatine daal nga teey def ndànk rek ndànk ndànk rek jëru yaakaar ne bala lu mu yàgg yàgg dana ñëw. doo gis jamono ah. jaral. suñu bakkan lañ jaral dañoo jaral trop. daa ngi lamb dañoo jaral trop. waaw. fay naa la. ci lan nga ne. maa ngi jàpp. Réfane nga wala géej la 100 pour cent. 100 pour cent waaw yéen a ngi waaj combat bi. bu baax sax pare nañu. pare nañu fépp tey. Balla nee na doole leen may de. waaye doo fan on on lay nag. on waaw. nee la moo defoon lay defaat. ah day naax boppam rek mooy loolu. si bordeelam lay nax rek. est-ce que pare nañ fépp. parce que yàlla. xam nga Balla démb dafa def appel presse. mu ne Tapha Tine lamb ji kese la ci am à part ambiance lu mu indi da koo ñax. waa géej waa lay nax ak boppam parce que yàlla mooy lool Tapha Tine ko gis xam ne pare na bu yàgg mooy loolu. ñoomoon ñaar yoon. ah. <laughs> waaw ah, man moom mu ngi moom micro moom mooy loolu. tiit fan. tiitu lu de. déedéet Balla Gaye mooy loolu. état de yow Balla Gaye du dara. Balla Gaye man mii doon mënuma. mais mais mais mais démb dañoo dégg. Balla Gaye man mii doon mënuma. waaye Balla Gaye moom moo gis tànk dafa sew dem bi ma ko gisee mooy loolu damaa gën xam ne Balla Gaye mooy loolu quoi ah. dafa am na physique am na doole am na yëpp mooy loolu. lan conseil ah mu raam euh, fekk Balla Gaye rek bañ xaar Balla Gaye fekk ko mooy loolu mu raam euh, mbaar Balla raam ko def fulaak fayda daan ko jóge ko mooy loolu. waaw ah, tey ku ki nga xam mooy bi sani taju la ñoo ko fa am. mooy loolu ay stade dix heures dix heures la ñuy dugg mooy loolu feesal ko barki yàlla. ay re ay refal ngeen. waaw mais yéen a ngi pare combat. pare ngeen fépp. lan ngeen nar a indi. combat bi. ba bés bi rek ñu mën a indi lu ne. ah. ñu mën a indi lu ne kay. Balla nee na dóor la leen di may. ah Balla day xaar loolu day wax rek. njool mi pare na de njool mi yeewu na de doon nelaw. njool mi yeewu na. waaw. Balla nee na lam defoon lay defaat de. ah Balla day wax nii rek. mu jaaroon lay jaaral. bilaay. bala day wax ni rek waaye Tapha Tapha fa nga ko jaar mën na ko faa jaaraat de. mais mais mais démb Sénégalais yi dañ ne. Tapha Tine dañ ko teel a jàpp ci gàllaaj parce que Balla Gaye dafa génn def open press stade Guédiawaye fees dell Tapha Tine toog benn ruqu def point de presse ñu ne da ko teel a jàpp ci gàllaaj est ce que loolu yor na. non lam ji moom ay gàllaaj amu fi moom ñoom ñaar dañoo bokkee wut quoi xam nga Tapha Tine doo ko xoolee xam na booy Dakar fii la yaroo waaye Tapha Tine moom fa mu dëkk ñoom dañ ko yar looloo tax moom mooy affaire du usbu yi moom la xam doo gisee doo dem sax ni mu demee nga war a xam ne Tapha mii moom dafa yaru xamul ay affaire lii ay fecc yi lim interprète bi mu indi ay bàyyi ay bàyyi laatam la sol ay bologam dig wane ne moom nit ku baax la affaire yooyu moom xol bu rafet la yor barke alxuraan Tapha Tine mais nan nga gisee état état de physique moom moom moom Tapha Tapha a ah, maa de am naa yaakaar si moom moom wax dëgg. gëm nga ne am na doole. gëm naa lépp gëm naa ne am na doole ñi ñu daan wax tabax daa ragal daa ragal yëpp man loolu gisuma ko si moom wax dëgg naa yàlla. Hmm. bilaahi. mais mais mais lan nga séntu ci combat bi bëre xeex. combat bi mën naa am lu ne lu ne gisi xeex mën naa am bëre mën naa am waaw. léegi boo koy digal lan nga koy digal. li ma koy digal li ma koy digal mooy mu tey rek. du tee daal mën naa am ndam combat bi bu amee deux minutes moom mooy am ndam forcé. ah kon combat bi bu yàggee arrangé wul Balla Gaye. Ah. walaay. fan nga tënk. Balla Gaye ne firip su ñëwee attaqué Tapha Tine te doo xorexee yàlla mën na ko may ndam ndax bala ndax Tapha su boobaa moom du xalaat affaire yooyu. waaye du lam jaay ma deux minutes trois ba ba ban songoo ba ñoom ñaar albis ut ati ñëwaat su boobaa. bala day ñàkk forcé. Ah? billaay maa ko wax. wóolu nga sa mbër. wóolu naa sa mbër. gis nga ne taxaw na. billaay taxaw na est-ce que mun na billaahi ba bés ba. incha allah incha allah. waaw. ak béy mi dafa mel ne bokkul ndax dafa dafa mel ne màgg diggante bi. wàllu mobilisation ak wàllu nga xam mooy prise de contact. dafa naka nga jàngatee. si affaire de contact. non non bala bala. bala moom bala bi est-ce que wàññi bala wàññeeku poids sax. Tapha Tine daa wàññi poids toll woon nii ëppoon na nii fuuf. Tapha doon mag Tapha xale bu ndaw la. li ñuy wax nii rek naa Tapha Tine Tapha Tine waaye Tapha ñun ñi dëkk moom xam nañ ko bu baax Tapha xale la xanaa yàlla ko may lii mu mag nii rek waaye Tapha xale bu ndaw la waaw. lam ji moom lami léegi moom amatul sëriñ moom ndax doo ko xoolee si Modou Lo rek pare nga lam moom ku yaakaar ne sëriñ mooy daal yaa nax sa bopp. lam ji doole laaj ak aw fit ak mën a bëre sëriñ amatut foofu. mais est-ce loolu mu ngi ci Tapha. loolu mu ngi ci Tapha waaw. ah bilaahi. loolu nga sa barke alxuraan. ban heure ngeen nar a dugg instant. ñun midi pile ñu ngi arène. midi pile yéen a ngi arène barke alxuraan kay. kon rafet na. bi. waaw maa ngi lay fooraas. nga ne. waaw sant yàlla ñu ngi liggéey bi. refan may ndam. Ah Balla waaw. mais mais mais mais li a ko sama entraînement ak sama ngëm ak sama jàmbaar laa gis. comprendre nga nuyu nuyu Mari Fara sant nañu ne Gonaas nuyu euh, kii Thiat Daouda Fall nuyu Guigui su ma nuyoo nuyu naa Sa Thiès Balla mu def ndànk rek mu def ndànk te euh, xam nga 2013 ak 2024 wuute na Balla am na fi yokku mais xaw na ko wàññeeku mais man amaat affaire boo xoolee tamit bi ko Balla daanaka léegi wuute na. mais Balla bu bëree bëri ba mu seen bëri moom mën na am dara mais foog mu xaar ko mais bu diiree Tapha Tine mën na am ñëw sax mais bu gaawee rek Balla mën a def lu mu daan def. mais Balla démb dafa wax ne li mu 2-0 lay lay amaat ba pare Tapha lu mu indi da koy ñaax. waaw mais Balla bu waxee am na fu mu ko def parce que koo bëri 15-15 seen lamb jëkkëjëf nga daan ko nga ñëwaat daan ko 2 minutes 6 secondes soo amaatee mu troisième combat boole naa ko def loolu ñu ngi koy gëm parce que comme bi mooy troisième fois ñu laalee. mais mais démb ñu bëri dañu wax ne Balla day taxawul. non 100 pour cent mais dernier moyen mën nañu finition bi mais combat bi li dë bëri. mais dimanche prochain su dëgg la daan na bëri ba ñëwee sax ceinture balaa moon fukki mu def daal suñu dafa day affaire am kenn xamul noonu wàññi poids kenn xamul noonu yokkee poids. mais waa Réfane dañu wax ne Balla Gaye yaram daa yàqu. loolu wax ju yàqu la rek parce que nit ku waxoon baram te bu ñu jàppee dinañu évolué. nee nañu ba mu commencé daanu ba léegi daanagul benn mbër. ak yooyu daan na fi kay. ngir bu rëy mu jëwaat de boo ñëw tër waaw. bu ñu jëlee roi des arènes Tapha Tine fi daan 12 13 14 Bombardier daan ko mu ñàkk ko comprendre mu bëri ko mu seen CNT entertainment ñàkk ko ci la gàddaay mooy secteur bu njëkk puberté bi doole nga xamul nga wax léegi maanaam bu bëri ba Gris Bordeaux 2018 ñëw bëri waate Modou Lo 2019 tër ko Modou Lo daan fee mu seen doog a jël couronne bi bala daal Gris Bordeaux amal na fi ñaari victoire boo ñu ngi doog ko fi daan am nga confiance ci moom bien sûr te yàlla ak yàlla may ndam jërëjëf. maa lay ziar. borom Réfane. waa dafa leer. yéen a ngi waaj combat bi. pare nanu hmm? waaw instant yii nii moom ndam rek. waa géej waay démb am na lu ñu wax de. Hmm. nee nañu 2-0 la ñu am seen kaw. non waa géej waay moom wax rek la ñu am si bi. kese mais leneen. Ah, bala parewul bala gaynde gu magat la. ñun gaynde mu magat jaaxalatuñu. mais Balla nee na fa mu jaaroon lay jaar. non. loolu nee na du dépassé deux minutes. loolu du am bala wax yi la fa am mais bala dara nekkatut fa bala dafa magat open presse bi gisoo tàng yi dara ne aussi tous. mais la moo tax Balla xool Tapha Tine ba mu nekk mu ne Tapha lu mu indee da ñaax. ah non loolu moom xam nga ne waxi mber la rek waaw ndax ñun moom lu mu bon bon bu dee ñaari fan sax bere nañu ko loolu waxi mber la rek waaw loolu moom mais mais démb dafa am ñu wax ne. Tapha dañ ko teel a jàpp ci mystique. parce que démb Balla dafa génn def ëppal presse. Tapha Tine toog benn ruqam def point de presse. waaw loolu moo baax nag ku bëgg lu baax da ngay. la du mystique. non du mystique gars noo xamul rek dañuy toog di wax nii rek mais ëppal presse bi sax moom baaxul si bala Balla li Tapha Tine def loolu war na def waaw mais deful ko Tapha Tine def ko loolu baaxul si bala bala moom moo war na làqatu ndax daa am fu mu jógee booy ñaar daan ko booy yëpp ñëw daan ko. dafa war na am fu mu jógee am na am na fu mu jógee ah léegi na defariwaat ñëw mais actuellement bala moom combat bi moom nu ma ko préparé baaxul si moom te maa la ko wax ba dimanche. lan ngay conseil Tafa. Tafa suul tànk yi. ah topp ko dire ko topp ko bañ koo may dara talal ko loxo droite bi rek gauche bi dem du pousse passe. mais mais Sénégalais yu bari dañ ne Tafa mënu xeex mënu bari non loolu moom ay wax la rek Tapha moom façon jël bu nekk moom daane na ko mbër façon jël bu ñuy xalaat daane na ko mbër Tapha day plaqué Tapha day njiin day mboot façon façon bu nekk lay lii mais rek xam nga rek gars yi moom Sénégal moom mooy loolu quoi. Hmm. waaw mais mais est-ce que pare ngeen ci ci ci côté musique. musique non bu njëkk moom xam nga rek Tapha suñu staff baaxul woon. Tafa booy xool amul kenn koo xam ne mu da doon jàppale Tafa mais léegi Tafa yeewu na na staff bu baax ñu ngi koy jàppale naajement instant moom mystique moom macha allah. pare ngeen fépp. pare bi hmm? moom suñu xel daal na moom. daal na am ngeen mbër. non roi bi leen soxla. Ah roi bi moo leen soxla. ndam li day dem ref la. incha allah Dakar lay yem. pare nañu non dañu ko yóbbu Medina jóge Medina uti Refane. féete ko foofu. Eh, maa la wax lii. yaa wax loolu. cey loolu. ñaari image yi. dama see kontaan. ndax man seetaan naa ko seetaan open presse Balla mais moom dama see kontaan moom. ndax xam naa ñu topp si ginnaawam. ndax avant loolu dañ see waxtaan ñu topp si ginnaawam benn instant lu nu ko digal noonu la. ndax moom instant yi lamb ji dafa jaxasoo instant mënoon naa def open press ah lu bëri xew si biir ndax instant bi moom dañuy gise quoi. maanaam poids xam nga gars moom dañoo xamul ndax ñun dañuy ñun dañuy entraîné dañuy yëkkante ay wi ñàkk lépp mais tafaatin poids bu mu yor moom moo ko moom. ndax Eric Fabre moom instant yii kuy indi kuy liggéey si moom ah, xam nga li nga war a liggéey. waaw dangay liggéey liggéey naajement moom sa bopp. waaw bu ñu nee temps lii ak lii ngay def moom ngay def. waaw mais mais combat bi yan nan ngeen ko pare xeex wala bëre. combat bi naar bi pare rek. bu suufulee moom ah jàmm jeex na. lu mu laaj. lu mu laaj lépp lañu koy jox. muy xeex muy bëre. muy xeex muy te bala moom. bala suñu ñeme ngeen a jaxasoo ak Balla moom. bala mbapat ak moom. incha allah dañuy mbapat. dañu koy duma mbapat ak moom. mais est ñeme ngeen xeex ak moom. bala bala instant bi nii laa wax de ah supporter yi fi nekk nii rek di wax nii rek mais bala moo instant yi nii fit wi dem na maa la wax lii <laughs> di ngeen di ngeen ñëwaat jeex na kon. bu koy waaj bu baax a baax pare ko fépp jàpp daan ba du am dara. Balla nee na 2-0 lay am seen. loolu liy wax rek wax neex moom dafa rëy làmmiñ dañ koy bàyyi combat mu wax ba daal mais bës ba bu ñëwee nu mu def daanu. Balla ba door yu métti. Balla nee na pare woo leen de. dañ koy door gu nga ko gëj mu ñibbi. billaay yow. yaa wax lii. billaay. bala gaa yi di ndelu rek moom làmmiñam dafa rëy dañ koy béy ku waaj dafa bëri wax. <laughs> Balla nee na combat bi yéen ambiance kese ngeen ci am à part ambiance loolu indi da ngeen koy ñaax. ah moom loolu la yaakaar rek mais baa bi soufflé ba ñu taaj bantu 30 mètres bi ba jub kaan bi commencé. balaa day soob rek bu ko Tapha bi nga xam ne lépp dégg na. mais booy wóolu wóolu wóolu nga wóolu nga wóolu nga Tapha. ah Balla gaynde gu magat gaañ. waa Guèye waaye nee nañu Tapha Tine tànkee dara new ah loolu la ñu yaakaar balak forme bu ñaabee mel ni diriyanke gaayen mooy loolu bu sumee ko gars yi pay daw bala gars de gumagat la day ñëw rek daanu soob man la moom li muy wax sax gému ko. Hmm? bilaay yow. mais nar a indi bëre wala xeex. combat bi lépp la indi. combat bi suuf la léppay am. dinañu xaar nañu bëri nañ ko door door yi miti gën ko géej waaye mu ñibbi. mais Balla Gaye démb nee na Tapha Tine ñemewul a xeex moom ñemewul a bëre moom. moom loolu la yaakaar loolu la yaakaar ba bu abi suuf la ah nañu xam daal di xeex am du xeex bala moom loolu sax muy wax du ko def xeex boobu muy wax du ko def. Balla du def billaay bu abi suuf la di laqtu. Balla du xeex Tapha. du xeex ñemewu ko. ba bit ne fépp mu yoolu buñ ko dooree benn kese ba pare si lam ji mais mais mais est-ce que pare ngeen ci wàllu pare nañu fépp kay lam ji saa ñu dem bu doon tey ngeen bëri ko bu doon ñu dem géej waay fa am dara bala nee na am seen kaw deux zéro la leen duñ fa am dara ku ñëw daanu ñoom waa géej waay yëpp ñoom ñoom seen mbir indi te ñoom laat dëgg ren boo ñaan gars yi yëpp mbir yu mag yi ak ñu ndaw ña sur booba buñ ñëwee ñu daan leen si benn goon billahi laa ilaaha illallaah. tey bëri ngeen ki nga xam mooy Balla Gaye. 2013 ngeen ñëw bëri waaw naan bëri waaw. 2013 bu yàgg la ma fekk sax man ma juddu. instant Tapha Tine ay mbocce ñoo si kanam di ko wax ak moom. Tapha Tine instant nee na 2013 fekkul moom mu juddu. ñu bëri dañ fay judduwaat ñu bëri dañ fay judduwaat bu ñëwee ñoo gëm Tapha Tine ko mu dóor Balla Gaye duma ko daan ko la ñuy 2013 dañ koy sensé. est bu bees tàq moo Balla waaye Balla Gaye ak formam bee mel ni diriyanke mooy loolu Balla Gaye yor dara biram bu rëy bee nekk mu tëj ko. te soo a bëre Balla Gaye ak nan lan nga di toog si tànk rek di ko jam muy dal bu yoroo rek duwaat bi ñëw. mais mais combat bi bu gaawee est-ce que est-ce que arrangé na Tapha. waaye bu gaawee ko bu yeexee lañ koy teg yàkkamtuñu si dara. dañ ko door ba mu naani soo ñëwaat. bilaay yow. est que Tapha du samp machine. Tapha Tapha kay ab combat amut machine Tapha ab combat ku mu bëre jaay daw combat yëpp boo xoolee premier ba deux ba dernier combat ku mu bëre jaay ayee gën saako du ay yaral góor. ba bi suuf lee sa kaw. te loolu. amut lu ngay xalaat. dëgg la. ñooy di sant yàlla bu baax. yéen a ngi waaj combat bi. waaw ñu waaj combat bi pare fépp. waaw ñu pare fépp. bawal ak fépp pare nañu. nan nan ngeen nar a dugg sa stade. si gu neex rek comme dab rek comme nañ ko daa defee rek. jàpp door daan rek. mais booy wóolu ngeen seen mbër. wóol nañ ko lool. mais démb est-ce que gis ngeen gis ngeen gis ngeen Balla Gaye de physique bi mu indi. ah balaa maxu guy rek. guy guy guy rek leb la rek. abiyaas bee ne rek dara nekkul ci biir. day naxe rek. booy li ngay wax gu wér lépp rek. abiyaas bee fi nekk rek. waaw. mais me mais démb lan moo tax Balla taxaw ne moom mun na jàngal tafaatin bëre te combat bi tamit tafaatin bu ñëwee lu mu indi da koy ñax fan la ko teg. bala loolu la am si bi wax joog la ci am bu jeexee jana ba arbitre soufflé gaan bon tëj barbari bala na xam ne lépp dëgg la na ne bool bool bi la ko seqal de. guddi bool bool bi taxaw na. guddi yi moom bool bool moom ginnaaw gi dootu laal suuf moom. est que est-ce que yeewu na ci làmb. yeewu na ci làmb de 2013 ak léegi sensé na de. Hmm? waaw. Hmm. waaw. bu xeexee est que du ñàkk. du ñàkk dañ koy duma daan ko bala du xeex du bëre. mais mais mais mais mais nag waa Géej waaye nee nañu Balla Gaye mun na jàngal Tapha Tine bëri de nee nañu Tapha Tine ñi ma wala mbapat ak de. wax ji moom xam nga wax dañ koy béy ak ñoom si. di ko Tapha wax rek bala sóor si. baal bi suulee laa xam ne lépp dëgg la waaw. combat la nar a lu mu andi dina ko fi na fi am lu doy sikk waaw bawol gëpp pare na waaw da ko takkoon da ko takkoon mais loxo loxo yi na xam ne loxo yaak yooyu bokkul de non loolu mën ta ñëwaat 2013 ak léegi bokkul de ah Thierno dina xam dina fi fekk dina fi fekk yeneen saltige yu ko gën a garaaw lu leer dina fi fekk keneen gaynde mer la fanaanoo de. ah gaynde ñun suñu gaynde moo fanaanoo mer de. bala lu mu indi baaxul. lu mu indi. baaxul. lu mu indi dafa ñàkk. billaay yow lu mu dof lu leer laa la wax. kan dof. Cheikh Gueye dof na ko lu saltige de reefan. <laughs> jaajëf. ci lan nga. maa ngi fi maa ngi ci marché bi waaw. Réfane nga waaw Réfane. waaw 100 pour 100 ngi pare yéen ngi pare combat. waaw ñu koy pare bu baax a baax. mais mais mais est-ce que loolu day day lii rek. Balla Gaye am na lu mu wax ci yéen de. ah nee na indi da ngeen koy ñàkk. day wax rek bu suur ba rek. incha allah dañ ko defaraat maanaam moo leen dàq bëre dàq lay xeex te 2-0 lay am seen kaw. non on door daan rek ñibbi bawol. waaw ah, ah. la ma wax waa géej waay ah, rek bay buñ sumeeku daal lépp dina waaw. yow yow est-ce pare ngeen. incha allah pare nañ fépp incha allah daan lépp la def incha allah. lépp la ñuy def. lan lan conseil Tapha. ah rek. tey dóor ko daan ko. non mais xam nga xam dañuy waxtaan ci làmb. waaw Balla def na fi lu ne. waaw Balla nekkul mbër moo xamante ne nii da ngay ñëw rek. jàpp duma daan. waaw ah. lan ngay conseil Tapha. Balla Gaye moom champion la mais. bu ñu soxlaa day ñàkk incha waaw mais bu ñu soxlaa nag day ñàkk parce que dañ ko jàpp door daan ñibbi rek waaw. waaw suñu ndam la. mooy borom. waaw Tapha koy digal mu bëreeg bal waaw jàpp rek door daan ñibbi incha waaw. yaa ko fa am. waaw la demee nag. ah. bilaay ñoo ko fa am. mais mais mais mais waa ji nee na da leen di duma daan leen. Ah, waay day wax rek. mooy loolu. day nax gaay na 2-0 lay am seen kaw. ah loolu moom ci waxam la rek mais ku ne xam ne ci biir géew bi bilaay. mais est ce que est ce que Tapha pare. Tapha. loolu mooy loolu bilaay Tapha na bu yàgg sax. ah bilaay. mais waa Géejawaay dañoo wax ne. Tapha Tine dañ ko teel a jàpp ci mystique moo doon démb ñemewul a génn. non Tapha Tine gars yi dañ ne bu affaire yi mooy loolu. ah dañ ne bot baawul. Ah, affaire du galaay ba liggéey la. bilaay. mais mais mais est-ce que accès sa waa liggéey la. saa ah, gars yi ñu gis ñu rek. te Balla nee na tamit Tapha ñemewul mbapat ay wax bilaay. Tapha day day naax suba teram bala. day naax gars yi mooy loolu wala day naa gaay bala day naa gaay voilà ñoo ngi fii Castor ci mbokki Tapha Tine waa Refane combat bi nag jàpp daan la waa Refane wax grand la wax non man kay amul man amul wax saay ah Tapha daal rek loolu rek may wax yàlla na ko yàlla may ndam kese rek laa may que gis nga Tapha bi baax na wala. loolu Tapha may wax pare ngeen waaw pare nañu fépp moom mobilisé wu waaw incha allah dimanche bi dem. wala nee na da leen di duma daan leen. non loolu moom wax mbër rek yàgg nañu koo dégg ci ram bi duma daan yooyu mais Tapha gën a sadik foofu Tapha da koy duma da koy daan dimanche daal incha dem stade teel a dem teel du stade bi waaw te Tapha nag li koy conseil bu may jëkk bu may bala njëkk koo parce que wóoru bu arbi rek nga dem uti ko man loolu laa koy conseil mais kon est-ce que duñ ko may dara est-ce que ngeen parce que Balla bu arbitre sifflé ci kawam la jot. non bu ñu tasee moom baaxul ci Balla bu ñu moom loolu moom baaxul ci Balla moom. waaw bu ñu tasee ci Balla. bu jëlee bu jëlee ku moom di kaw. mais mais Balla nee na 2-0 lay am seen kaw. non 2-0 moom loolu moom mënta ne moom. fa mu jaaroon lay jaar. non loolu moom mënta ne. moom dem naa loolu moom la mu leen defoon la leen di loolu ak la yaakaar naa. loolu ak loolu sore na loolu que ci diggante bi mbër pare na ci. Balla moom parewul moom. moom parewul moom man pour man. Tapha pare fuuf. sa waay Balla du ñeexum ñebe nag. waay sa def na fi lu ne nangul ko. loolu am na bëri naag sa mbër daan ko ñu war a tasewaat mais kañ la gëj a daan mbër Balla Gaye yaay Balla Gaye daa yàqu gaan Balla Gaye yàqu na Tapha xoolal kañ la gëj a daanu yaakaar naa maa Ama Baldé la gëj a maa ci Ama Baldé ba léegi Tapha daanu waaw mais ci Ama Baldé léegi benn combat la ci bëri. non mais ci benn combat. bëri na fekk Boy Niang bëri na fekk. Euh, mu daan Boy Niang. mu daan Boy Niang. mu daan Eumeu Sène. Eumeu Sène daan Bombardier. ah. te da bala incha allah dimanche. ah waaw. soobee pare ngeen jël Bawol Bawol yi pare nañu fépp. incha allah dem jëli ndam soobee yàlla. waaw ah. Bawol Bawol la. loolu rek daw ñu làkku de. waaw soobee yàlla Balla Gaye day tëb. Balla day tëdd bu soobee yàlla insha allah rabbi Balla Gaye day tëdd wóolu ngeen seen mbër daal waaye loolu ah, sax ñun boo balloon du mu daw làqu de bool bool cent pour cent boo ñu suñu gën a boo ko dagoon te it bool bool nga ci fekk mais Balla nee na fa mu jaaroon lay jaar Balla lamañ ngay baax muy wax nii rek bu soobee yàlla day tëdd incha allahu rabi. te loolu. waaw làmb mooy mbër bi ne Balla Gaye kenn ku ne xam na ko nag. def nañ fay lu ne bor bi ne pir na ko te pe pe gosam bi écran bu bu mu xaar bu mu xaar bala di dóor wala muy ñaan da ko fekk bu ne dara rompum daj nga defaat ne ceex ngem bu ko jàppee ko ba jeex mais lamb ji fan la war a jeexee ci bëre wala ci xeex. lamb ji xeex lay départ ci bëre lay jeexe incha allah rabbi. Ah. waaw mais mais mais Balla nee na Tafa ñemu la mbapat ak moom. non Balla day wax rek. Tafa ñi daan ñëpp daan mbapat ak ñoom. El Hadj Diouf. Cek dikk mi si ñor. leen def. dañ ne daa a xeex mu ñëw di palaage dóor tànk lu ne da koy def xam nga lii problème bi mooy dafa am ñu soxor. mais Tapha Tine mbër gënu ko nekk mbër. ñi ci làmb ji ñëpp Balla Gaye ñi ko daan Tapha Tine di leen daan boo ñëwaat lu ko def cinq minutes la ko génn làmb cinq minutes ñu daw génn làmb te boo ko bañ a jàppee da koo firaxe ci minutes la ko daan. waaw ah, Balla du ñooñu de. ah gën a neex daan combat bi nii. incha allahu rabbi dañ ko daan. yow gisee feex lu bi yàlla. bala dañ koy daan incha allahu rabbi. Ah. maa la wax nii. wana wana leen seen bopp. seen bopp ma xool